mbokki daaray Seydil Xaaji Malik Si assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellusiwaat nanu ci daara ji tey di sunu ñeenteelub jotaay ci sunu téere maam Seex al Xaaji Malik bi di faakihatu tullaab mbaa jaamiul maraam góor gi daldi ni yaquulu afqarul abidi siini raajiya afwil maaniil xasiini danga naan yaquulu mi ngi di wax ëfqarul abidi ki gën aajowoo ci mboolem jam ñi la ca boroomam ci yërmande ci njëggal ci xéewal ci ay may subhanahu wa façon la bopp gaay yàlla yi dañ ko tuddee seen bopp bu ñuy présenté ci kanamu yàlla duñu tudd lenn luy wane seenu yëkkatiku ci seen kanamu boroom waaye lépp luy wane ak suufe suufelu lépp luy wane ak wàcce sa bopp façon tur yooyu la ñuy bëgg di melal bu ñuy présenté wu amaama rabbikum ci seen kanamu borom moo tax fii maam Seydil Xaaji Malik tuddee boppam afqarul abidi ki gën aajowoo ci jaam ñi la ca boroomam subhanahu wa taala da ngay dégg al faqir mënees na koo firi aji ñàkk waaye prime dëgg-dëgg mooy ku aajowoo léegi nag langa nga aajowoo da nga koo ñàkk waaye ñun buñ ne faqir rek xaaliban dañ ko daan joyal jëme ko ci koo xam ni amul lu mu añe wala amul lu mu reere d'accord kooku faqir la waaye mag ñi bu ñu tuddee seen bopp faqir bu ñu tuddee seen bopp afqar du ñu ñu ñàkk lu ñu añe wala ñu ñàkk tool yu ñuy bay wala ñu ñàkk ak njaboot waaye dañoo bëgg tuddee seen bopp ñi gën aajowoo ba mel ne ku ko ñàkk la ca seen borom subhanahu wa taala ci may ci yërmande ci njëggal ci xéwal maam Seydi Xaaj Malik ni bu ko ñëpp soxla woon maa leen ko gën a soxla afqarul abidi ki gën aajowoo ci mboolem jaam ñi la ca boroomam kooku kana mu ni as siini koy kojug siin gee ca boori jolof siin googu ca jolof xam ngeen ni maam usmaan mi baayam siin googu ca jolof mooy cosaanu ay baayam ak i maamam kon maam Seydil Xaaji Malik dëgg-dëgg as la maanaam cosaanu ay baayam siin googee ci biir jolof la ñàkkul bés dañu ñëw ci ay jaar-jaaram ay wéyjuram askanam dañu indi lu gën a yaatu ci lu ko boole ci siin googu ca jolof waaye lii rek firnde la ci bi muy présenté wu xam leen na ca teel ñi moom siin googi ca biir jolof cosaanama mu ni raajiya afwil maanii mbir moom kii wax mi ngi yaakaar njëggalal aji xañe ji kokkana subhaanahu wa taala lu fi waaye ñàkk moo la ko xante wa kazalika itam lu fi waay am moo la ko jox laa yaakaar ak njëggalam mu ni rajiya mbir moom xàlla moo ko taxa nasabu noonu mbir moom muy aji yaakaar njëggaluk aji xañe ji aji xañe jan alxasiini aji musle ji képp koo xam ni ko mu fat doo fanaan biti koo koy alxasiin mooy subhanahu wa taala kon yaqulu danga naan mi ngi di wax afqarul abidi ki gën aajowoo ci jaam ñi la ca boroomam subhanahu wa assiini koy kojug siin gee ci biir jolof raji afwil maanii mbir moom muy aji yaakaar njëggalal aji xañee ji waaye alxasiini aji musle ji wala aji ñoŋale ji ku mu ñoŋal nga ñoŋ moom subhaanahu wa ki wax kan la almaghribiyu almalikiyu al سمي مالك الإمام الأشعري kii di présenté wu day almaghribiyu aji askanoo ci sowu jant la waaw aji askanoo ci sowu jant la moom ngeen di tuddee africain waaw wax nii boo ko doon dàq muy ñibbi boori sowu jant liy ñibbi africain la la bëgg a wax almalikiyu ki aji askanoo ci mazhëb bu imam malik ibni anas sidi xaj malik ne man sama wàllu fiq école bi ma koy jàngee mooy école imam malik ibni anas loolu mooy almalikiyu aha kay Seydi Xaaji Malik ne man mazhabu imam Malik lay aj sama fiqhu li may jàngal nu may jaamoo yàlla atte ya mazhabu imam Malik laa caa déglu almalikiyu kay aji askano ci mazhab bu imam Malik ibni anas rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma alxaaji malik nag bu askanoo ci mazhabu imam malik wàcc na ki wax kana mu ni al ashari ki nga xam ni nag wallu tawxiit wàllu paspas pas ki mu ciy déglu mooy imaam abul xasan ali ibnu ismail ibnu bishr ibnu ishaq ibnu ismail ibnu abdillah ibnu moussa ibnu bilal ibnu abi burda ibnu abi moussa al ashari kooku ñu tuddee imam al ashari nga xam ni jàngale na ci tawxiid lool képp koo xam ni tawxiid bu wér nga am danga tënku ci njàngaleem moom imam al ashari moomu ndax moo ko jàngale na ko asalaf asaalih doon jàngale moo ko jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yam daan jàngal doon jàngale moom itam noonu nga xamee mazahib yi ci fiq ñi naan man maliki la ñi naan shafii la ñi naan xanafi la ñi naan xanbali la loolu mooy ci fiq waaye bu ñu ñëwee ci biir tawxiid te moo jiitu sax moom itam ay pàcc la def waaye bi nga xam ni moo wér boobu la sallallahu alayhi wa nekkoon tënkoon ca saxaabaam ya boobu mooy aqida ahli sunna wal aqida ahli sunna wal jamaa nag imam al asari liggéey lool kenn dabu ko ci ñu mujj ko rek askanale école ba naan naan mazhabul ashari loolu la maam Seydi Hadj Malick jublu ci man nag sama wàllu fiq maliki la waaye sama wàllu pas-pas ci nu nuy gëmee yàlla ashari la daan la ñëwal léegi ci kanay imam Malik ci talxis bu tënku waaye kanay imam al ashari ak liggéeyam ci buntu bii di tawxid tënk gu tënku maam ni al almalikiyu al ashari samiyu malikin kii di wax nag turandoo imam malik la samiyu malikin turandoo malik la malik man al imami imam malik imam malik man al ashari imam malik mi nga xam ni sama pas-pas bii ma am tënku ci aqida bu imam al asari moom itam pas-pas bii la am kon maag moom ñoo bokk pas-pas bu ñu tënku wëlbatiku moom lay déglu ci sama mazhabul ibadat dégg ko donte imam malik moo fi jiitu imam al ashari nii waaye boo gisee maam Seydi Hadji Malick tuddee ko fi al ashari mooy li ma la feeñalal léegi ni la pas-pas bi njàngale mi fi la néewoon ndax sallallaahu alayhi law ca la nekkoon saxaabatul kiram ca lañ néewoon mais imam al asari moo ko dekkalaat gannaaw ba mu njaxoo gannaaw ba mu raxoo gannaaw bañ ko njaxasee gannaaw bañ ci dugalee yu ci bokkuloon mu ñëw layaat ko seggaat ko ba mu set tegaat ko ci raay bi mu leer naññi loolu nag imam malik ibn anas moo ko fi jiitu ca ca la woon kon imam malik itam buñ koy présenté mën nañu ni al asari lu ñu tuddee ko al ashari te moom moo fi jiitu imam al ashari parce que pas-pas boobu mu amoon moom imam malik ibn anas muy pas-pas bi imam al ashari don jàngale buñ tuddee école bi imam al ashari loolu mooy al maghribi al maliki al-ashari samiyu malikin al imaam ashari al ashari gi njëkk ci sattur way wu njëkk wi naat la ci maam Cheikh Sidil Hadj Malick waaye al ashari bi mujj ci sattur bu ñaareel bi naat la ci sayidil imaamil maliki bin anas rahmatullahi alayhima wa radiya anas est-ce que dafa amoon mazhab bu tudd noonu ca jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci saxaaba yi ñu naan man mazhabu imam malik laa tënku xam nga amul woon imam malik dinaa ci ñëw léegi nee na fi jàng door jàng lim jàng bay ber mazhabam kon amul woon moos ca jamonoy saxaaba ya waaye ànd ak lépp li muy wax ci biir mës mazhabam ma nga fa woon ci jamonoy saxaaba ya kon ndekete atte bu mu indi ci biir mazhabam saxaaba buñ mës xam mu def lu mel noona saxaaba booba mën nu ko askanale ci mazhabu imam malik ndax lan loola mu jëfandikoo mooy tolloog juste lii imam malik jàngale ni nii lañ war jëfandikoo bal sax jëfandikoom googee boo demee sax ca la imam malik dëgg ba ni ku tollati foofee noonee ngay jëfandikoo gis nga lu ni mel nag lañu ñu tuddee mazhab bii di mazhabul ashariya wala ñu naan leen al ashaira ñoom itam mazhab bu turam bees la rek waaye li nu gëm li nu fas ma nga fa woon ca jamonoy sallallahu alayhi wa sallama mu fasoon ko saxaabatul kiram ya fasoon ko waaye tur bi doo nga bees turu école bi moo bees waaye lañ fay jàngale dara beesu ca imaam abul hasan al ashari buñ lay wax as ci moom téere yi bind ci moom bare nanu téere yi ko cité wax ci moom as lëf kenn xamul nu waaye lu tënku rek pour indil la ko ci yàlla dafa dogal ci moom ndimbal ci lislaam bal am na sax ci boroom xam-xam yi ñu ko tuddee al mujaddid al sax na ci njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam mu ni yàlla sekkal bu ne dana fa yabal kok dana beesalaat diine la ca ràppoon mu beesalaat ko tegaat ko ci raay bi la ca doon ay njuumteeg yuñ ci bëgg dugal te bokk ca mu siñaale ko ña xamul woon xam ko yi ci bokkoon ñu bëgg ko génnee dana ko delloo si nii yi bu ko kenn génnee ci la kooku mooy almujaddid nee nañu imaam abul xasan al ashari mii ci mujaddid yooyu yi la bokk ndax fi mu fekkoon lislaam mënees na koy tuddee ak guta mu génnee ca ñoñ lislaam liggéey ci lislaam lool kenn ci lislaam dootu ko fàtte kenn ci boroom xam-xam yi dootu ko fàtte waaye wa qabla kulli dalika dafa bokkoon ci mazhab boobu ñu tuddee al al mu'tazila école la moom itam boo xam ni day jàngale pas-pas comme nii ko imam al asari di jàngale école boobu ca la abul xasan al asari mii bokkoon yàgg na ca lool ndax ci la juddu dund na fa quarante ans am bàyyi ci moom joo xam ni du bàyyi ji ko jur waaye góor la woon gu doon denc yaayam góor la woon gu doon denc yaayam moom la olof di tuddee kon moom abul xasan al asari doomi jiit la la woon ca góor ga ndax góor ga doon denc yaayam góor googu mi ngi tuddoon abu aliyinil jubbaa'i moom nag ponkal la woon ca mazhab bu al mu'tazila daanaka moo ko jàngal abul xasan al asari forme ko ca ba fu mu toog dañu xam ni ponka la fa toog di jàngale yennat ci pas-pasu al mu'tazila ba dund ca 40 ans daawul teqalikoog mukk sëriñ boobu di bàyyu jiit leem di abu alinil jubbaa yi léeg-léeg bu amaan ngant ba jàngale jiwul wala ñu laaj ko masala te sawarul abul xasan mii lay woo rek ni ko wuutuma fa bu dee masala la mu ni ko tontu ko ànd lépp nag abul xasan al asari léeg-léeg daan na ko laaj lool góor gi du ko ko tontu mbaa bu ko tontoo du ko tontu lu ko convaincre masala moom doon dut ci moom du ci am lu ko leer dana ko jaral tëju di ci xalaat di ci gëstu bal di ci jëli sax dégginu ñi wuuteeg école boobu di al la masala moomu ñoom nuñ ko déggee muy dajale dégg-dégg yi di gëstu ak xelam ak ndimbal ko yàlla mayoon ak fitra asalima gu ko yàlla mayoon ba xam lay dëgg mu génn weer dëgg ci pénc ma bu ci la àndee baax na buñ ci àndul moom danaan man ci lii laa jàpp doonte waa école am donte baayam ji jàppul ca loola moom lim jàpp dana ko wax nga kon nekkul woon ci école di fa doxe ak parparlo ak taasub déedéet foofu nag le imaam al ashari daal di tàmbale nag dootul bokk ak ñoom jotaay dootul toog ak ñoom dootul toog fu ñuy jàngale seen pas-pas yooyu tëju ci fan ak juróom inda qawlil di di laaj boppam ay laaj bu ci amee tontu baax na bu ci amul tontu nettali ni boppam ni daan naa gàkk ci masala duma am ku ma ko laaj ba nga tontu ma lu ma convaincre ma julli sama ñaari rakka def samay salawaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu xamal ma masala mi lanay pirim su ma nee gëmm ay bët gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ma alayka bi sunnati maa lay dénk nga moy ci sama sunna maanaam la ma newoon maag saa yi nga ne ca loolu lu mooy lii nga nekk nii yàgg sa baay yi bokkul woon ak lama newoon lii abul xasan al asari nettalil na ko boppam am nañu wax ni fukki fan ak juróom génnul waaye ba mu génnee bisu aljuma mu jubali ca juma ja ca basra ñu julli juma ba noppi mu yéeg ca kaw minbar ba dal di wax baat yi maasira naas inni innama taxayyabtu ankum fi hadihi almudda li anni nadartu fatakaafatu cindi al adilla walam yatarajjax cindi xaqun ala baatil wala baatil ala xaq fastahdaytu llaha tabaraka wa taala fa hadaani ilaa maa awdactuhu fi kutubi hazihi wan xalaatu min jamici maa kuntu actaqiduhu kaman xalaatu min thawbi haza ba mu génnee dani mbooloo mi maa ngi leen di xamal ni faddu gii faddu woon ay fan xamoo leen ci lu ma dama wéetoon doon xalaat aka nattaat aka seggaat ay tegtal yoo xam ni mi ngi woon ci sama xel waaye xawma ca lu cay dëgg xawma ca lu ca dul dëgg ma tànnuloo yàlla ñaan ko mu wan ma lay dëgg mu xéer ma ca wan ma la dul dëgg mu génnee ma ca falillahi alhamdu wa sukru nag yàlla wan na ma lay dëgg tënk na ma ca wan na ma la dul dëgg maa ngi nii di ca génn lay dëgg nag yàlla xamal ma ko def naa ko ci sama téere yi téere yooyu nee nañu ca la bokk al ibaana téere la boo xam ni bu siiw la nee nañu bim génnee ci mazhab bee di al mu'tazila téere boobu la dal di liggéey weer ca weer ca lépp lool al mu'tazila fas nañ ko ci ay tappale ki caaxaan waaye wane ak génnam ca yooye pas-pas waaye wane ca itam léegi lan la pas muy pas ahlu sunna wal jamaa ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ak i mu daal di summi mbubbam mim tegoon ci kawam teg ci suuf ni nii ma def sama mbub mi nii ngeen di gis noonu laa sunnikoo ci mbooleem pas-pas yu bon yi ma façon ci biir école boobu di al mu'tazila moo tax tey école boobu kii seen premier ennemi mooy abul hasan imam al ashari mbokk yi lii dana doy ngir nu doyloo loolu ci tënkub kan mooy imam al asari pas-pasam boobu nag mu mujj di dund di pas-pas bi wér pas-pas boobu ñu bare tey ci al umma al islamiya moom la ñu gëm moom la dund seen digg ak seen boroom pas-pas boobu mooy pas-pasu aqida ahli sunna wal jamaa maam Seydi Hadj Malick nee na man maa nga foofa man maa nga foofa almaghribiyu almalikiyu al asari sammiyu malikinil imam al asari maam Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu ginnaaw bim nu ndeke aqida bu imam al ashar la ca amee aqida lu sunna wal waaye itam école imam malik ibni anas fa lay dégloo nu muy pratiquer lislaamam mbokk yi nanu bokk bàyyi xel ni diine diine ñetti ponk yi la am al imaan al islaam al ixsaan al imaan jëf joo xam ne xol bee koy def al amal al batina jëf la yooyu xol bee koy def ngëm xol xol a koy def looy fas looy weddi xol a koy def loolay al imaan école bii jàngal sab xol yim war gëm mu gëm leen yim war a weddi mu weddi leen école boobu la nuy tuddee école al aqida aqida yooyu nag laa la ni ñi ngi bare lool waaye benn ci wér de benn ci wér boobu nag nga xam ni mooy bi wér yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon ca tënkoon ca saxaabam ya mooy bi imam al asari bii ne mam Seydi Hadj Malick nee na calaane mboolem mag mu yiw ci lislaam ci réew mi ak fudul ci réew mi ci pas-pas bii la tënku daa dox nag ba dégg ay boy yu ñëw mujjug jamono dañuy askanale seen bopp feneen waaye di teg ay tuuma ak i ŋàññi ak i xaste ak i saboote mboolem koo xam ni aqida bu imam al asari bii nga amee daa ko dégg ci ñooñ jamono xale yooyu mujj ñëw waaye teg leen fa xam ni maam Seydil Hadji Malick fum ni falaa bokk bu la maam Seydil Xaaji Malick doyee bokk fa keneen ku digg teeg fu mën a bokk ak lu mën a wax ngir sabootee ko fii mam maam Seydil Xaaji Malick bokk loola bum la intéressé te loolu musul ñàkk ci jamono ba ko yàlla bindee ba ba mu koy taxañ ñay nekk ci dëgg dañuy nekk ci dëgg ña nekkul ci dëgg daa seeni lëmiñ di leen teg baat mel ne ñoom ñoo ne ci dëgg waaye tey umma al islamiya quatre pour cent yi ci aqida imam al asari bii lañu ñu tënku mais dix pour cent yi des ñi ngeeg seen lamiñ wu ñaaw di leen tegi baat ni yéen seen pas-pas boobu du bi wér yàlla al asaf maam Seydi Hadj Malick nee na boobu ngeen naan wérul man ca laa ne ba xam di ngeen ko téewér al maghribiyu al malikiyu al ashari boo gisee mu njëkk laa melal pas-pasam parce que al iman muy jiitu ci ponk lislaam yi al iman al aqida moo kaa jàngale école yi jàngale aqida nag bu imam al ashari mooy ca wér boobu la maam Seydi Haj Malik ni ca laa tënku bu dee al islaam école yi koy jàngale mooy mazahib bi mazahibul arbaa ci gën a siiw waaye ëpp nun ko imam Malik ak na mu déggee imaam mawlaaya muhammad ibni idris alshafii ak na mu déggee abul xanifa ak na mu déggee ahmad ibnu hanbal ak na mu déggee ñooñu ponkub ñaareel bi te mooy al islaam al islaam mooy cër yi ci kaw nu ñuy pratiquer seen jaamu yàlla wa taatu ljawaarixi kon cër yi ci kaw nii nii nii julli jàpp sangu tiim aj makka joxe azaka yooyu mooy al islaam yooyu nag mazahib yi ñoo koy jàngale si li xaj Malik ni man nag école yi li ñuy bare bare sama lislam moom ni ma koy pratiquer mooy na ko imam Malik jàngale école am boobu du almalikiya ca lay déglu nu may pratiquer sama lislam mbokk yi boo nee al imaan ni al islaam pankub ñetteel bi moo di al ihsaan al ihsaan mooy nag sa ruux gi nan lay jaamoo yàlla sa xol bi nu muy jaamoo yàlla wax naa la ko sa cër yi nu nuy jaamoo yàlla wax naa la ko bi ci des nag gën caa jafe mooy sa ruux gi ni muy jaamoo yàlla sa ruux gi nag ni muy jaamoo yàlla école bi koy jàngale mooy tasawuf tasawuf moo mii nag ci la mag ñii tënku ndax ñoom fexe nañ ba tàggat seeni ruux muy jaamu yàlla comme ni ñu tàggatee seeni cër ba nuy jaamu yàlla waaye nag école ba mu ca taamu mooy école sayyidi wa mawlaaya abil abbaasi ahmad tijaani saqaana allahu min bahrihi bi azamin kuusi wal mbokk yi kon nañu teg fii sunu baaraam ba dellusiwaat ci sunu jotaayu juróomeel wéy ak ci melal aslëf ci kan mooy imam maliki bini anas comme nii ñu ko melale ci imaam abul hasan al ashari doore wéyale nag limaam seydil xaaj malik teg ci way mu ni al maghribiyu al malikiyu al ashari samiyu maliki al imaami al